njiital parti Pastef di Ousmane Sonko ay mbiram ma nga ca yoon journalisé ko moo ko bind ba xamal ñu ne tuumay viol ak menace de mort la ko Senas ndaw su sant Sarr di toppee ba tax mu plainte ko ci section recherche bu gendarmerie ndaw si nee na Ousmane Sonko dafa daan ñëw ngir di maasew waaye heure bu maasew ba pare da ko naan bu mu ca yam na ko defal yëfi saay-saay xale bu jigéen bi ne viol googi Ousmane Sonko dëkke ak man mënatuma ko stress bu dul jeex lim doon liggéey Les Échos nee nañu sandarme yu section recherche yi déglu nañu leen démb ci lu yàgg ki ñuy tuumal viol ak menace de mort di Ousmane Sonko yéene bi nee nañu bi ñu ko laajee li mu leen tontu moo di moom Ousmane Sonko yëgugul ab plainte bi ñuy wax gisagu ko dossier Ousmane Sonko Adji Sarr mu nekk dossier bu sensible ci ñu gën a bari luñ daal di wax naka noona ca njëlbeen ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr muy Adji Raby Sarr mu daal di tuumal ki nga xamante ne moom mooy njiitalu Pastef bi di Ousmane Sonko ne da daal di sàkku du benn yoon du ñaari yoon ci salon de massage bii di Sweety Beauté Ousmane Sonko nekk opposant de taille bu Macky Sall ci élection yu ñu mujjoon muy 2019 ba élection yooya Ousmane Sonko jël ci troisième place ñu bari itamit seen xel tey lool ci xibaar gile ndax Ousmane Sonko ni mu toll ñu jiñ ko ab sàkku kon nag mbir mi doy na waar lool mbir mi am na wala amul lu ci mënta am mu nekk li nga xamante ne ñëpp rek ñu ngi cay daal di àddu dimanche ga ji juróom-ñaareelu fan ci weeru février ci atub 2021 gii ab xibaar gu bees juddu ci dossier gi lee ki nga xamante ne moom mooy magu Ndeye Khady Ndiaye di patronne Sweety yi moom nag li mu daal di xamle muy ki nga xamante ne moom mooy raqam jile dañ ko daal di fay maanaam dañ ko daal di ger ngir mu xamal leneen lu uuteeg li nga xamante ne lu la wax ci gendarme yi lee ngir jubli ci leneen lu dul dugal ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ci dossier bii ñu daal di xamle dossier bi mu amee tekk tekkaaral gu ñu daal di wan ne ci kaw Ousmane Sonko gi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 altine juróom-ñetti fan ci weeru février Ousmane Sonko nee na moom du wuy ji benn convocation bu ko juge defal wala sax tribunal di ko daal di woo ca loola ndax am na li nga xamante ne moom mooy mbalaanu kiiraay kon nag képp koo xamante ne bëgg nga mu wuyi si la foog nag ñu toog loola dindi li nga xamante ne moom mooy unité parlementaire am ba noppi mu soog laa wuyi si ca loola askan wi. ñu gën a bari ci ñoom jeunes yi jóg wuy ko ci loola ne fii du police du gendarmerie du kenn ku ko fii jëlee ci këram googa muy cité kër góor gi mu daal di dëkkee police daal di encercler foofa ba noppi itamit jàmmarloo gu metti am fa diggante ndaw ñi ak takkader yi lee diggante lacrymogène ay briques yu ñuy sànnante xeer ay pëne yu ñuy lakk gaañu gaañu yu mucc ayib yu ñu daal di nemmeeku ba ñenn ñi itamit ñàkk fa ay deret gu mucc ayib ca loola lu ne xew na fa ca cité kër góor gi ca bés booba

Aïda Mbodj ak ni tax na ñoom lu ñu daal di wax ne mooy plainte gu ñu daal di indi ci assemblée nationale plainte contre X la binduñ ci benn yoon turu Ousmane Sonko kon nag lii du yoon du dëgg loolu yëpp nag nekkoon ay rëq-rëq yi nga xamante ne ñoom ci seen bopp nemmeeku nañ ko ca loola itamit dindi nañ li nga xamante ne moom mooy mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko ngir mu mën a ji fi nga xamante ne moom mooy tribunal.

mu nekk rek li nga xamante ne moom moo juróon yenn buude maanaam ñenn ñi mer ba sax génn li nga xamante ne moom mooy assemblée ga ndax nee nañ ñi nga xamante ne ñoo fa nekk nekk nekkuñ fa leneen lu dul liggéeyal Macky Sall mi lee moo tax bi vote bi di am ñu gën a bari ci ñoom dañoo geddoon salle ba ba génn mbir mi weesu mbiru PV yi nga xamante ni ñeel na ci ñi nga xamante rek ñoom lañ doon déglu muy aji Sarr Ndeye Khady Ndiaye ay sataba ak ki nga xamante ne moom mooy Sidi Mouhamed Mbaye. noona procès verbaux yoo nga xamante ne déglu nañ leen ca ñooña ñu xam ne. ñun ci woon déglu muy aji Sarr mile muy plaignante bi madame ay Ba muy deuxième masseuse bi monsieur Ibrahima Koulibaly muy jëkkëru ku moom suiti booti bi monsieur Sidi Mouhamed mbay moo xamante ne moom moo gunge woon ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr ngir mu dem déposer di plainte Aïssata Ba ñu waxoon ne fekkee na ni ak ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr Ndeye Rokhaya Ndiaye mi ni nga xamante ne moom itamit mise en présence lañ ko daal di woon def naka noona fuite am ca loola ba ñu gën a bari di naañ li nga xamante ne moom mooy section de recherche ana naka itamit la dossier yi daal di fuité ñu joxoñ baaraamu tuuma ki nga xamante ne moom mooy capitaine Touré nga xamante ne moom moo yoroon enquête bi muy capitaine Oumar Touré ba tax na ca loola ñu daal di ko ci tëj 60 jours pour arrêt de rigueur ba noppi itamit daal di ko raje ci fonction am ba na ci loolu dossier bi di dem ba ñenn kilifa diine yi tamit daal di ci wax ngir àddu ci jàmm gile ne Ousmane Sonko na daal di dem wuy ji moom nag gannaaw gi mu daal di jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi li xamal na leen ne dina dem wuy si naam waaye nañ ban plan la gouvernement bi bëgg lal ngir faagaagal ko moom mii. dossier bi dossier bu vide la dara newu ci te li Sénégalais yi gisagum yépp jëm na ci côté boobu. comme am dossier bi dara newu ci ñun am na benn piège bu ñu war a moytu benn ndëgg sërëxal mooy ñu may leen fu ñu créer beneen dossier ci biir dossier bi parce que loolu mooy seen bëbët yépp nag tey xam nañ ni dossier bi yëkkati nañ ko defe naa mujj naa dis ci ñoom suñ ko mënoon yebbeeku yebbeeku ko waaye dañoo ñëg ndax dafa nekk cible politique goo xamante ni dañ ko bëgg a supprimer ci istuwaar politique Sénégal bii naka noona moom nag mu taxaw témm ne bu fekkee complot gi kon askan wi waruñoo seetaan ñuy faagaagal seen leader. ba tax na na ñëpp wàcc ci mbedd yi gunge ko mu dem ñëw ak jàmm ca loola mu woo askan wi yëpp maanaam tous les jeunes yi nga xamante ne dañoo ànd ak moom ngir ñu mën a ànd ci tribunal. ca loola mu doon lu metti lool ndax convoi Ousmane Sonko sax pour mu jàll c'est tout un problème mbooloo mu ne takk. ba tax na itinereer gi nga xamante ne waroon nañ ko jël ngir aw booru université ak minimel dañ ko daal di contourner yóbbu ko ba corniche waaye ca loola balaa sax moo daal di àgg ñu gën a bari itamit ci ay takkader taxaw foofa ndax foo mënta jàll ci yoonu ndakaaru yi léegi di nga fa fekk ay jeunes yu ne ŋàññ lacrymogène diggante sànd ak xeer ak ni ni mel taal pono ak leneen li ñu daal di gis ci mbedd ndakaaru yi lee loola otom ñu daal di ko encercler waa GIGN ñoo ko daal di def ndax moom dafa waxoon ne fi nga xamante ne moom mooy corniche ba ay nervi lañ fa daal di teg kon otom bu fa rombee dañ koy daal di saccagé moom it mu ne demul ca loola ñu daal di encercler oto bi daal di ko wàccee ba procureur Bassirou Gueye daal di sàkku ne ñu daal di ko téye yóbbu ko daal di koy toppee appel à l'insurrection ba noppi tamit teg ko ci trouble à l'ordre public. Ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut faire Ousmane Sonko wàcc na ci otoom Ousmane Sonko en ce wàcc na ci otoom gis ngeen chef de protocole bu nekk ci ginnaaw moom Ousmane Sonko wàcc na ci otoom en présence de ses avocats dina otoom. fi mu wax ak yéen ñu wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa GIGN ma ngay dox di dem moom président Ousmane Sonko fan la jëm kenn xamu est que day dem wuyu ji kenn xamul Ousmane ma nga noonu di dem.

mais biñ demee ba à un niveau ñu ne ko fii doo ko jàpp loolu dafa indi problème parce que nag bu leen nekk dañ nekk dans un am na sañ-sañ jaar fu mënti neex. ajjuma juróomi fan ci weru mars dëkk bi tàng jër foo sànni mbatt mu takk rawatina ndakaaru ci yoonu Blaise Diagne diggante sàndante xeer lacrymogène jàmmarloo gu metti jiggante askan wi ak takk der yi. ca loolu la ñuy daal di xamle ci ay manifestation mars dernier yi ñu daal di ji gis ay marché yu gën a bari daanaka ñu saccagé ko lu ci mel ni Auchan Total ak ni mel ñu daal di saccagé ay boutique Auchan ay station service waaye tamit ay yeneeni commerce yi nga xamante ne français yi ñoo ko daal di moom sabotage direct diggante Eiffage ak ni mel lu tax ci France mu wax leen xat réew mi tàng kur tax na ñuy nemmeeku manifestation bu gën a bari ci Ndakaaru ci Sénégal war nga këpp ci gàttal ci tënk donc di fàttali ci li nga xamante ne moom mooy manifestation mars dernier gi amoon na ci lu toll ci quatorze morts maanaam fukk ak ñeent doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ñii ci ay lakk-lakk ñii ci ay bal fetal ñii ci ay xeetu lacrymogène ak ni ni mel ak yeneeni gaañu gaañu yi nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko ca mars gile Antoine Philips John daal di génn njàllale njàllam ak famille yi nga xamante ne ñàkk nañ seen doom ca loola waaye tamit di ñaawlu bu baax a baax jëfu terrorisme yi nga xamante ne jeunes yaa ngi koy def te itamit nekkul lu jaadu te du yoon ndax buñ yàqee seen bopp dong la ñu yàqal. ñi ngi masaw di jaale ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakken ci xew-xew yi nga xamante ni am na ci fan yi foofu dama fay wax ni euh, maa ngi woo askan wi di woo ndaw ñi nga xamante ni ñooy yaakaaru ëllëg nga xamante ni ku leen woo ci jàmm mooy ki nga xamante ni mooy seen mbokk képp koo xamante ni mi ngi leen di woo ci safaan tegu leen ci yoon wi baax te suñu kilifa yi dañu jàngal fii ci senegal ni ñu ndaw de moom ñaar lañ ko xamee mooy sàkku xam-xam bu mat sëkk waaye tamit ànd ak yar ak teggin ci wax ci doxalin ak ci jëfin. loola ñu xam ne Ousmane Sonko gannaaw biñ ko daal di jàppee ñu daldi ko yóbbu altine juróom-ñetti fan ci weerub mars. ñu yóbbu ko ngir mu jàkkaarloog doyen des juges gi loola ay avocat gi ñu daal di ñëwee ngir bëgg gisu Ousmane Sonko gendarme yi nekkoon ca buntu ga tere leen ko ba tax na ñoom ci seen bopp nee nañ c'était la première fois ñu gis ne dossier gi ni mel nit ñëw di xool client am ñu tere. mon frère je leur pour la première fois des avocats ont été interdits taxé dans le bureau du doyen des Maintenant, si le procureur général veut, il n'a qu'à engager une poursuite contre moi. 400 avocats vont se consulter pour moi et on va ca loola coow li ne kur ba tey kenn xamul coow li fan lañ daal di yàpp ndaxte yi tamit jeunes yi taxaw temm fu ne ci mbedd Ndakaar yi ca Bignona ca Kaffrine ca Kaolack Saint-Louis Louga Ziguinchor. fépp foo xamante ne rek ay ndaw Ousmane Sonko ñoo ngi fa ñu daal di yëngal bu baax ngir wane seen naqar ci dossier gi ni mel. ca loola la ñu daal di gisee Ousmane Sonko mu daal di génn ñu escorté ko ngir mu ñibbi këram ci loola la jeunes yu gën a bari ànd ak Ousmane Sonko di daal di woyandi ba buntu këram te cité kër góor gi naam 8 mars jàll na xale yi ne duñu bàyyi mu sedd. naam jàpp nañ Ousmane Sonko ba bàyyi ko waaye lu ñu ŋànkoon foog mu dagg dañuy daal di daje fële ca place de l'Obélisque ngir fësal itamit seeni naqar ci doxalin dossier Adji Sarr mile waaye tamit ay détenu politique yi nga xamante ne jàpp nañ leen ci manifestation yi ñu daal di leen a bàyyi ca loola ci ngoon gi ki nga xamante ne moom Ousmane Sonko gannaaw gi mu ñëbët daal di ñibbisee këram mu daal di génn jël kàddu wax ak taskatu xibaar yi ngir xamal leen ne day lu bu baax a baax li daal di xew ci réew mi li ndax lii moom mën nañ tudd leneen lu dul justice joxuñu leneen ci moom lu dul ab kompaloo dong ca loola ci guddi gi 8 mars gi le ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall daal di génn ngir message à la nation ngir wax ak ñoom ci situation réew mi li wax itamit xam na bu baax a baax lan mooy jafe-jafe ndaw ñi te ba tax na dina leen jàppale ci lépp waaye di ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ne moom moo xew ci dëkk bi tey tamit ji massawu ñi nga xamante ne ñoo ci daal di ñàkk seeni doom. déglu naa leen dégg naa leen itam message yi nga xam ne ñoom la ñu ma yónnee rawatina si kilifa diine yi message la yoo xam ne mënu si bañ wuyu ndax képp koy wut jàmm ci réew mi jàpp naa ne ki jiite réew mi ngay gën utal jàmm te lépp lu lu laal askanu senegal ak ku mënti laal si lu metti ci man mi lay gën a metti moo tax li ñu ma ñaan di doxal jàmm fexe ba mbir yi ñu dox si ngir mu wàcc jàmm am ndax jàmm loo ko jëndee jar na ko lii rek moo waral ñun ñu doxalee nii dossier bile di dugg di génn ba àgg am fi mu am nii empleur gi mu daal di am homme politique diggante xeex sàggante ay wax yu ñaaw yu ne ñu koy tekki seen ndodd diggante diw violeur la ak ni mel ba dossier bi àgg fu mu àgg nii ñu war a déglu ki nga xamante ne moom Ousmane Sonko ci premier audition ndax xam nañ ñi ci fàttali ñaari yoon yi mu daal di woon bëgg dem wuy si yëpp dafa am gàllankoor wenn bi dafa ne du dem wuy si ndax mbalaayu kiiraayam mayu ko mu dem wuy ji quiconque kon foog ñu teggi li nga xamante ni moom mooy unité parlementaire am te loola mënuñ koo defee feneen fu dul assemblée nationale gannaaw loolu ba mu weesoo wuy ji beneen gi mu waroon a wuy si dañ koo tere wuy si wala sax ñenn ñi itamit nit ñi dañ ko bari woon lool di itamit ngir gunge ga waaye moom fi mu waxoon dafay aw ñu ne doo fa aw dangay ngay jëlaat beneen moom mu bañ ne ay nervi taxaw feneen ngir faagaagal ko mu bañ a dem ñu daal di ko jàpp ngir trouble à l'ordre public. Ousmane Sonko mu sell mi le combat mortel bi nga nekk di woote combat boobu man ak yow la. yow nga ne yeewi askan bi Ousmane yeewi ma balaa nga yeewu keneen après ñu àndandoo man ak yow yeewi askan bi yeewi askan bi ci otage bi nga leen jàpp yeewi askan bi li nga yeewi askan bi ci li nekk di ante seen passé nga yeewi askan bi ci li nga xamante ne ñoom seen doom yi ci lañ dee seen 14 doom ci lañ dee ñu mën a xam si seen doom yi au moins ci lañ dee seen doom yi mën a reposer en paix. dem benn émission ak ay demoon ba ne leen. fii leeg moom doyen des juges woowu ma déglu ma dootuma sax signé cahier bi te noonu laa ko doxalee woon moo tax fan yi bu mu demee ba jàpp dat ba ñu yëgal ma ko laa dem def la ma war a def kon ku tolloon foofu xam ngeen ni moom yàkkamti woon na da ngay dégg euh, waa boor bële suñuy wax bëgg a ëlëmal xelu Sénégal yi naan waaw li tax muy daw moom na dem uyu waaye man duma ma convoqué sama bopp beneen mbir ba muy la troisième fois gi ñu koy daal di woo ndax woolu gi nga xamante ne moom ci boppam wax na ko muy moom mii moo ko daal di sàkk aji saax ci boppam itamit sàkku ne ngir mbir mi mu am ndax ñoom ñaar ñëpp ku nekk xam foofu féete tey jii di 3 novembre 2022 ñu mën a xam ne si aji saax sonko ñuy xamandi rek daal fan lay daal di mujj gannaaw ab audition première fois gi nga xamante ne ñu ngi déglu Ousmane Sonko ci dossier bi lee normalement la presse culturelle dara du dara kenn mënul la dara kenn mënul ci yow nañ ci parce que li nga xamante ni ñu ngi ko doon xaar suñu client yëpp wane na ko wane na fit wane na jom wane na fulla wane na fayda ba pare wane na que nit ku dëggu la liñ ko doon toppe yëpp euh, maanaam teggi na ko ba pare teg na à la place li nga xamante ni day permettre juge bi mu xam ni ay pexe yoo xam ne dañ ko ko doon fexeel pour dugal ko ci ay mbir yoo xam ni moom defu ko donc il été comme ni ma ko waxee ci nasaraan li mu wax yëpp leer na léegi fi mu nekk nii lu ñuy xeex actuellement mooy mu am non-lieu parce que loolu rek moo fi mën a am dossier bi amul benn élément buy wane ay sàkku wala benn élément buy wane diggante góor a jigéen yoo xamante ni dañu sekk dara donc li muy wane yëpp mooy lépp lu nga xamante ni doyen da ko teg doyen des juges mooy day décharger Ousmane Sonko lépp lu ñëw rek day gën a décharger Ousmane Sonko donc fi mu nekk ni ñun bëgg nañ ci lool te tey aussi c'est un grand jour parce que jour la woon boo xamante ne Ousmane Sonko da doon jàkkaarloog juge bi te loo xamante ni da ko yàgg a sàkku